biir bi métti na de yaa ñu ko def yalwaan. yalwaan dafa dund Aïcha. nga war a may kar def taxaw ci tali bi. non yalwaan dafa dund. bu demee yalwaan moom. dafa dund. waxuma rek waaye ay teere ngay am. ah bu ñuy waxee sama natt bi teggi ko xa xuloo bi ne jombay. mais loolu nag lu jar a xalaat la. xëy fajar daa mit da ngay toog ba naaj bi tàng nga soog sa sër ak sa t-shirt. bu nga si grande yi nii. am na yalwaankat yu fay toogee ñoom ñoo ñoom ñoo leen di wecci sama xarit nee na ma xoolal si yalwaankat bi ba wecci trois cent ñu dem fee a àggale lii xew xew wax. ayca <laughs> xew-xew bi tey fan la ak lan la xew bi nag tey dañuy dem ba fële sa Toubatoul euh, la nga xamante ne moo fa xew mu nekk lu metti lool ku ñuy wax sëñ Xaadim ñing moom la ñuy wax euh, moom la xamante ne ku tudd mbay nekk sa dëkk ba daal di lëmbe lu ko neex lay def sa dëkk ba ba yàlla def mu jàppanteeg moom si guddi gi mu ne moom tànk rayul eh, sëñ xaadim mi du am jàmm mu xëy ñu ne déet na waaye si fajar gi mu rey ko jam ko ñetti jam yoo xamante ne ni yu metti metti benn fii benn fii benn oh. fii ba mu mujj ñàkk ba kenam si saase eh, sama naataangoo yi demoon nañ foofu si tuubaatul kaba eh, déglu ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokki sëñ xaadim ñi ngi ñu koy wax maara li nga xamante ne lu metti loolu dal seen kaw ñu dem déglu ji leen te ñëwaat hmm. daaw ci maa la njëkk attaque fii maa ngi sotti sama jalama xaal maa la njëkk attaque hmm? yàlla def yàlla fi def ndox bu sëdd ay boor timis lépp hmm. daje fi hmm. waaw man ma wax dëgg li ma wax dëgg teel a tax dafa ñëw di ko jël siifaat dooleem man dama am ndimbal yàlla sama bon ci ma la waroon a dal allahu akbar yàlla xam na ko ma la waroon a dal waaw jamono loolu li bu tooy bi may jaay xal ci ma la ma njëkk attaque waaw loolu xam naa ko ci ngóor fa man nag xañ na yàlla sax daf ma cee tombeel ndax dama xëy am ay bagages yu ma doon jël ci marché bi bi ma xëyee maa ngi gis euh, booy bi foofu mu toogan Ablaye mm-hmm. mooy ki ko faat waaw maa ngi gis mu toogan foofu ci bu benn moto mm-hmm. ba borom oto bi mu taxaw ci kanamam naa ko bandi jakarta muy reetaan léegi man bi ma jëlee garniture yi may jël foofu maa ngi jaar ci jaaykatu ndekki bi jël fi ndekki dem fële di naan kafe mm-hmm. bi ma naanee kafe bay teg kaasu café bi ci laa gis mbay di daw léegi bi ma gisee mbay di daw ma dabi mbay ne ñi koy jàpp duñ bokkam comme man mii doomu nijaayam naa ko jàpp ma àgg mbay ne ma bu ma laal bi ma ko toppee ba à fin ci la ne Ablaye dafa war a dee ma ne ko lu mu ne ma Ablaye dafa rey Mara hmm? ci laa tourné dem si hôpital bi euh, man bi mu ne dafa ray Mara rek ma daw jëm gaaraas gis nit ñi jëm hôpital ma dem hmm. ñu tëj ko ci benn baram naan xaar leen ñu ngi koy faj. ndeysaan ah, bu ma xamee ne dañ koo tëj ci barab naa ñu ngi koy faj nag ci laa xam ne yàlla dogal na li gën. li maanaam euh, fi nga xam ne fi la histoire bi di déparé mooy. Mm-hmm. waajur bu nekk. Mm-hmm. dafa war a yar ak njabootam. Mm-hmm. teg ko ci siraatal mustaqim ba ëllëg si biir yi nga xam ne mooy xew. ñu moytu ko bu baax. ndax Ablaye moomu. suñ booy la woon fii nekk di jàng ñëw ci magam ba mu yàgg mu bàyyi ko di jàng mécanicien waaw mujj gi nekk fi di gens di mandé xam nga dëgg moom bu jotee da ngay wax lépp dëgg la euh, am ay gang yu muy àndal yoo xam ne nii mhm. maanaam ñooyam jikko parce que euh, képp képp koo gis rek mhm. kam yamal jikko lay àndal mhm. ndax euh, këw ma loolu ndax Ablaye maam magam bi ko doon jàngal ñëw nga xam ne ñaari eh, mag doxaat na ci seen diggante mm-hmm. mooy moroomu Mara mm-hmm. euh, mbay moomu rek dem bi ma ko gisee gendarmerie daf mu ne ñi moo maa dugg kaba ndax dimanche bi passé rek kër Mara la añe magu Ablaay kon nga xam ne dëkk bi daanaka bokki neen lan mm-hmm. leneen li ci tege mooy Ablaay bi mu jugee foofu dafa nekk ci dëkk bi di ruube rek bërki démb rek la busa mi nga xam ne doomu imam Moussa Fall la dafa dugg këram di joteeg doomam génneel ko jàmm ba busa dem gendarmerie ah, nit ñi def ci intervention fii nag mhm. ah, duñu duñu wax dëgg maanaam dañuy fay lakk goo xam ne nii ñoom ñoo koy taal ba pare di ko fay mhm. parce que nit bala ngay xam fi nga war a yam ci moom ak fi mu war a yam ci moom il faut ngeen dem ci yoon ba ñëw mhm. leneen li ci tegee it Ablaye yàgg nay nekk fii di euh, wax nañ ne jàllo mii di jaay xaal mhm. xama man damay tudd ay mhm. fekk na ko fa ba tàyyi génneel ko jam ne gu ne jël leen lu leen neex ci xaal ji hmm? euh, geneen kilifa yi wax na ne baayam ñëw na ci ba tàyyi ci ci moom nekkoo dem naa gendarmerie ne leen Ablaay mii de sama dooma waaye daa yor lu ma mën a rey ñëw leen dimbali ma ci hmm? non non góomu ko mosuma dégg ñu ne gendarmerie jël na Ablaye pour yeddal ko euh, pour yaral ko baayam euh, leneen li ci tege yin mooy mm-hmm. euh, kilifa suy bay bayal doomam ëllëg ki si biir daf koy indil lii rek dëgg la ndax lii am tey nii nii ca weñ gaa nga bañe ca mbànjaxaan nga ca ba muy gone mm-hmm. ca leen ko bàyyi di ko bay bayal lu ko neex mu def voilà Aïcha mu nekk nag xew-xew bu doy waar bu am fële sa Touba Toul fu ñuy wax kabanduur mu nekk nag loo xamante ni lu metti lool loola la xam nga waa ji moom euh, mbay moomu dafa sonal dafa leen a sonal lool. Mm-hmm. ndax waagoo ak nit ki njëkk a wax sax nee na moom yëf yi si moom la waroon dal ndax moom des fois bu jamonoy xaal ñëwee bu génnee xaal teg day jékki-jékki jël paaka génne jam ne xale yi jël leen xaal yu leen neex xale yi jël ku leen neex papaam jël jàpp na ko ci loxo dem ba gendarmerie boole waa gendarmerie. du benn du ñaar pour ñu ñëw dimbali ko ci mbay. Mm. mbay nekk sa dëkk ba di lëmbee rek ablaay ablaay mm. mbay cousin kee la ablaay comprendre nga mu nekk loo xamante ne lu métti loolu la nag ba yàlla def mu mujj rey ki nga xamante ne moom mooy xaadim ñi ngi maara oh. mu nekk loo xam ne métti na Aïcha te kii daaw la takk soxna euh, fonde famem mu rey ko noonu ay mbokkam ñàkk mu nekk loo xam ne lu métti lool loolu la Aïcha ki doon wax nag cousin am la moom moo jokkoon ak moom eh, bay bay en fait euh, nekk si koñ moo tax euh, am na yoo xam ne buñ ko waruñ ko bàyyi muy prospérer mhm. yenn comportement yi si si si dëkkuwaay yi mhm. euh, dangay ngay dénoncer nit kii quitte à ce que ñu ñu làq ko jànt bi temps bi mu fay nekk mu yéenewuma kenn kaso am na ñoo xam ne danger lañu pour euh, pour société bi ñu dafay baax nga xaw leen làq jante bi ne serait-ce ñu am benn redressement bu ñuy def si ñoom. Mhm. pour ñu xam nu ñu war a comporter oo oh, sinon day yàgg naa di def di def di def ba tey jëye si jëye lay mujjee. genre ñi rey nii yëpp dañu tàmbali ci di jam ñu gàddu yóbbu mhm. hôpital wala ñu mhm. toj bopp ñu gàddu yóbbu hôpital mais buñ la jekkoo dañ lay rey. te ñu noonu amuñu seen place ci société bi. ay correction ci maison noonu am na dañuy gis ay nit ñoo xam ne dañ leen di gracier bi xaw ma le lendemain ñu defaat la même chose moi je me dis est-ce que vraiment ñun ñi ñiñ fi nekkal pour pour pour aar ñu est-ce que ñu ngi def seen liggéey ni ni mu waree au-delà de d'éducation parents yi ñuy inculquer seen doom yi dañoo war a tamit bàyyi maslaa bu bëri mhm. c'est que mënoo nekk ci gox nga nekk ndaw di gis lu illégal parent yi defu ñu li euh, li ci war mhm. mais porte-voix volontaire wala ngeen def benn kuréel ci koñ bi ngeen jëm a xool noo leen xeexee loolu mhm. parce que def na ko kii kan la koy defaat suba doy est-ce que c'est la première fois tamit mu def ko doy na waaw ah, taw lépp rek dafay ñëwaat ci éducation. très léegi da ngay laajte sax est-ce que ah parce que mm-hmm. question loolu dafay doy waar mais des fois da ngay laaj est-ce que des fois sax da nit nit ñi léegi dañuy ragal sax di di di di jur. Mm-hmm. dama yàlla baal. ndax après doo xam ni ngay mm-hmm. jur lan lay doon. des fois nga yar sa doom na nga ko war a yare def ci moom éducation bu war mu génn mbedd mi yàq ko. tu vois donc yooyu noonu yëpp c'est des paramètres yu nga xamante ni dafay nekk en jeu mais lii yaakaar naa ne négligence daf ci am parce que nit am na yenn comportement yu nga xam bu ko amee vis-à-vis ci famille vis vis ci mbedd bi kooku dañ koy teel a yóbbu ko xool

ah ñu dagg sa loxo <laughs> dañuy dellu. vraiment rey yi bëri na de. meurtre yi ngay dégg. Oh, trop c'est trop bilaay. moom daal sonaloon na papa ji ba papa ji dem na du benn du ñaar ci gendarmerie pour bëgg ñu ñëw jëlal ko doomam yóbbu pour yar ko. ay nag lépp li Kajoor wax sànq rek bay bayal gis nga doom du tëw waajur noo mënti toll. sa waajur moom ñu la sukk jur war naa ma di si éducation boo xamante ni doo dem ba tëkku. ak i way loolu na si nit ñi bàyyi xel bu baax a baax. ak i way juróom bay bay des fois da ngay gis koo xamante dañuy dañu bàyyi seen doom ñu mel ni soo mujj na jéggi donc yooyu nag bu ñu koy continuer di ko continuer bu ñu nee màgg mooy nekk sa lakkal fu nekk nga dem fa di woote wala gendarme yi xam naa dañu naan yow segam yaa jur sa doom ba màgg mënoo koo yar ñun jaruñu doomu kenn dafa métti day ah tamit aywa kenn ko ñuy massa waa Kabay ñoom ñëpp ah waa Touba ñu leen massa bu baax baax di leen mm-hmm. jàng xaadim ñu ngi moomu ah bu loolu paree ay Aïcha xam nga ne nawet bi dugg si na accident yi commencé waat nag euh, am na benn boo xamante mi ngi am fële si entrée ngaay bi booy génn piir noonu euh, boo xamante ne ñaari nit ñàkk nañ seen bakken euh, mu nekk nag lu metti lool loolool image yaa ngi noonu si guddi gi oh gis nga bus baa noonu mu nekk accident bu metti lool loola ah. bërki démb xam nga ne xam nga nawet bi bu duggsee tali yi day gën a ritax ak yooyu dangay gën a dem benn bus la bu dajoo ak benn 4-4 euh, gis nga mu ngi noonu mu nekk accident bu metti lool lool lool lool lool ñaari nit ñàkk seen bakken si saa si mu nekk loo xamante ne lu oh doy waar lu nga 4-4 bi mu ngi nii mu ngi amee fële si booy génn piir euh, mu nekk nag loo xam ne lu metti lool ñu gën a ñaax chauffeur yi rek ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax seen bopp parce que teggi moo ko waral di teggi ba Euh, mbëkk nit te bis bi mu ngi doon dem fële nga xamante ne moom mooy euh, fii waalo nga xam ne day yaba yabay ba fees ndax horaire xam nga dafa mën a fees. donc mu nekk loo xamante ne lu metti lool lool la ñuy massa ñu ñàkk seen bakken yëpp waaye blessé itam bëri nañu torop torop torop mu ngi noonu. c'est c'est vraiment dommage. waaw daw guddi bi ko woon. mu nekk lu metti xam naa fajar gi xaar. bokk na si mesure yu ñu levé rek. xam nga bi affaire yi amee. Mhm. si tàng tàng bi la ñuy jël bu ñu paree mm. pare si mais lii nii xam nga ne lu metti lool lool la ndax bis bi da doon da doon da kii nu mu tuddati da doon da doon doublé 4x4 bi far ñu mu mujjee def accident bu metti noonu ñaari nit ñàkk lan lay mu nekk lu metti dafay xat aussi mm. mu nekk loo xamante daal na ñit ñi chauffeur gën a bàyyi xel tali bi surtout nawet nga xamante ne dafay di tax ay mm-hmm. nañu gën a bàyyi xel tali bi mais nañu def nànk ci tali def nànk ah yoonu jàmm sorewul dawal ndànk ba àgg ah di leen saw bu baax a baax on espère que vraiment euh, accident yi moom war nañ ci jël ay mesures parce que man axe Dakar Saint-Louis bi li ma ciy dégg ci ay accident yii yu ñu fës la rek yu ñuy gis ni am na accident yoo xam ne day am accident yu métti yoo xamante ni kenn kenn kenn du ko yëg lu doy waar la merci beaucoup Pétaw jaajëfal nañ la merci jaajëfal naa la bu baax a baax di jaajëfal sama naataango yi may bokkal xew-xew bi yëpp nga xamante ne fu mu amee rek dañu koy ànd ak ñun def ko lii leen jaajëfal bu baax a baax Aïcha merci beaucoup Racky merci Aïcha mm. incha allah ci kanam da ngay ni journée Voilà. la After. ok mm. d'accord. Kadior, merci beaucoup. merci à euh, demain excellente journée à tout le monde. merci beaucoup à tout le monde merci à toute l'équipe matinale jaajëfal leen bu baax a baax Ousseynou au niveau de la régie papa. Euh, Euh, Mouhamed ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax 10h di ngeen am seen flash d'information à à 11h à 11h laa naroon wax à 11h vous aurez Maria et sa team dans la mi-journée quant à l'équipe matinale ñu le leen jox dig daje ba demain inchallah et moi je vous retrouve à 14h30 dans votre émission Slow Time d'ici là vous bien et restez en compagnie de nos programmes yaa ngeen jëf. Amadou Ndeye la ñu jam saame Sidi Binta Dawul Doro